di ziaré kilifa yépp di ñaan serigne basirou antagne ak magal gi lépp luñ fi jang ci ay xasida ak ay ñaan ak ay istighfar yalla na suñu borom ful te wacc ko ab yool ci dëkk bi te guddal fanam bu wéré wéré wér ak jambaram ji di Cheikh Mouhamadou Kara Sylla di suñu yaakar tey ak ëlëk ñu ngi leen di bu baax baax baax jërë ngeen jëf bismillaahi ma jóg wàlli lambi ginnane ki ma càllal kum faral nga daan bismillahi ma jóg lambi diwan. ginnane ki ma càllal kum faral nga daan ki jaamub sëñ bamba di modo kara mo mo sangalan tey ma wax fi lu bégloo ngomeen menak malan, yal na jub te rafet tey mbégum waa samaan kuy bege mam seex ma pate diwan ak donom kay bay seexi si diwan boy bo ubi ubbi say nopp ñëw déglu mor moy xaritab sëñ Moodu diwan su ma dee géerit dib géwal ci xaadim ak ñoñom doyloo saam di soppi diiwaan duniya suron kalak tamoo di yaale xayrul wara waa makka dun ko jaale waa yàlla yóbbu ahmadul makki yoo dellu si yóbbu ahmadul makki du bàyyi sunu maam ceerno ibrahima ka leen xaadim ci lay maxduma yooyu la yaari xew wi le ko yetteel fa daarul mu fi xew wi le dimbetteel ab ki ala seydi ibrahima ma jooy le suuf ibran awa tafima ab ki ala xalili ibrahima ma dellu jooy le asamaw xadima